na ñibbi këram buñ ko soxlaa mu ñëw teg nañu nag ay charte yoo xam ne dañu ne dañ ko ciy tegal wante Ousmane Sonko homme politique la mbir mi na leer mooy ko dara peuple bi ñoo taxaw nekk takkal leen seen seen yi ngeen jël di ko teg ci ndokk nit def nañ ko fi jàll na ñu defaat ko fi bu jàll wante bii yoon nag du jàll kon tey jii peuple bi ñoom ñooy exiger libération bi tey gëm nañ ko yëg nañ ko xam nañ ne que fallait que ñu libéré ko pour que réew mi dellu si jàmm libération décision boobu kon jël nañ ko Ousmane waxtu bi ñuy wax xëy na yegg na këram moom moo demal boppam delluwul gendarmerie delluwul police te it dina wax remercier ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci mbir mi te ñu jàpp ko nag ngir jàmm ci réew mi jàpp ci aussi démocratie gën a sax te law ci réew mi jàpp ko pour que aussi lépp loo xam ne ak àq ak yeleefu doomu aadama la ñu jaar di ñu delluwaat ci loolu charte yi nit ñi topp ko wante bàyyi di def seen politique ku ñu neex ñu néewal la doole ku ñu neex ñu sànni la ci kaso ci kaw loolu ci kaw loolu procureur de la république ak ministre de l' intérieur bi dégg nga ak doyen des juges yaakaar naa ne ko jot na jot na ku ci ne fa nga ne ñu wàccee la ci siis bi nga toog ndax réew mi ñu mën a am ñoo xam ne di leen soxal moom moo di état de droit di leen soxal moom nañu beaucoup de pagaille dans ce pays inutilement tey jii xëy na bu réew mi taxawuloon tey jii heure bi waxtu bi mu ngi ci kaso bi loolu nag dafa war a dàkk te dina wax dina wax dina wax ak pour remercier moo xam ban ban ban procédé la koy defee ñëpp ñoo xam ne tey jii sur le plan national et sur le plan international mbir mi defoon dañ ko seen combat et que tey ji victoire bi ñoom ñoo ko. yeneen charges yi appel à l'insurrection ak trouble à l'ordre public. yooyu daf ci am daf ci am levé garde à vue bi comme que garde à vue dañuy indi dossier léegi dossier politique yëpp dañ ko war a gas suul ñu gas ko suul liggéey suñu réew ku ci ne ñu jox la sa ak ak sa yelleef respecter les opposants wante yor parti bi opposant bu wax ñu rendi la loolu dafa war a dàq. appel à l'insurrection bi nag dossier boobu charge boobu nag fu mu toll boobu yëgu ma ko. man yëgu ma ko mais li wóor moom moo di que yooyu yëpp ñi ngi ci jàpp ñëpp c'est des détenus politiques et on doit les libérer. dossier yi nañ ko gas suul nañ di jéem a xool réew mi naka la ñuy ciy doxee ci kaw jàmm ak naka lañ ciy defee ku ci ne jël sa àq ak sa yelef loolu lañ war a def.